jaajëfal leen bu baax a baax mbokku téléspectateur yi safoo teewlu Kaolack TV mbokk yi juróom benn waxtu moo jot ba toftal ñeent fukki simili ak juróom dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci xibaar yi bokk na ci li gën a fës ci xibaar yi nag liggéeykat yaa féete ca mairie bu Kaolack mu mel ni nag gannaaw ab grève boo xam ne ñu ngi ko doon amal ni ki tey nag ab sitin la ñu amal foofee ca biir mairie bu Kaolack waaye nag dañoo ñaawlu bu baax a baax comportement ki nga xam ne moom mooy maire Serigne Boubou gannaaw nag bu mu àndee ay nervi ak i xaj ci biir mairie boobee loolee nag waral ba ñi nga xam ne ñoom ñooy agents municipaux yi daal di ko yuuxoo ba tax rek ñu koy woowee ab dictateur foofee ca biir mairie euh, bu euh, Kaolack buñ ca noppee nag danañ àddu wax ci suñu rubrique découverte ni ki tey nag ñu demoon. Euh, ca dëkk boobe ñuy duppee Sangor bokk ci région bu Fatick commune bu Diouroup loolee nag waral bi suñu ndaw ñi ci ab gàmm boo xam ne ñu ngi koy amal foofee ñu koy amal nag at bu jot atum ren ji nag daal nañ ko amal niki samedi gi ñu weesu euh, tax rek ki nga xam ne moom mooy imam ba fa nekk daal di ñëwaat ci jafe-jafe yi nga xam ne dëkk boobee da ko doon jànkuwanteel dinañ dem itam euh, ca diwaanu Nioro ak ndaw ñi nga xamante ne dañoo duppee seen i bopp euh, jeunesse Macky 2024 ñoom nag mu mel ni daal dinañu noppi rek ngir jàppale ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall ngir rek mu amal li nga xam ne moom mooy euh, troisième candidature foofe fii ci diwaanu Sénégal di ngeen teewlu leeral gi ci le jotaayu xibaar ñaareelu xaaju xibaar yi mbokk yi ñetti ponk lay doon xibaaru biti xew tàggat yaram ak li ëtt yëgleekaay yi xëyee tey mooy yëkkati suñu jotaay kon mbokk yi ponk yaa ngoog su ngeen taaxirloo tuuti yaatal géeg faram-fàcce gi gannaaw bakk ba lay doon asalaamaaleykum mbokk yi gannaaw bu ñu leen nuyoowaatee beneen yoon xibaar yi nag nuñ leen ko junjee ca bopp ba la ñu koy wéyandee ak agent municipaux yi nekkee ca mairie bu Kaolack ni ki tey nag ab sitin lañ doon amal loolee nag ñoom ñee daal dinañu ñaawlu bu baax a baax comportement maire bu Kaolack di Serigne Boub gannaaw bu mu jëlee ay xaj ak i yi nag daal di ko dugal ci mairie bu euh, Kaolack loolu nag waral ñi nga xam ne ñoom ñooy agent yi ni ki tey ñu koy yuuxoo ba tax rek ñu koy woowee ab dictateur foofee ca mairie

ku nekk boo amee lu naq sa gi nga dëkk sañ ko faa wane ñu toog fii ne li ñu naqadi dañ koy wane fii di ko métitlu moom mu dem ci rajo yeeg télévision yi parce que moom opinion bi lay waxat moo tax nous aussi tey am nañ antenne pour wax opinion bi ñu déglu ñu déglu li xew ci mairie bi mais déglu gestion mairie bi également li ca xew pour nit ñi askan wi àtte ñu ci la waxee ci biir loolu daf ne kenn dugg ci mairie bi dafa de l' instance suprême ci souveraineté bi nga am ñoom ñuy ñëw démb moom kenn côté la otoom dugg ci biir maire bi oto ñi ci des ñëpp nekk ci biti mu fermé yëpp chaîne yi indi fi ay nervi jox leen ay fetal ay jaasi jox leen ay gourdin indi fi ay xaj mënte ay caméra de surveillance xool leen maire bi da koo dagg seng fu nekk mais xoolal li wax def léegi tout à l'heure oo aali ñaan ne ko naa sa bureau oo ko ne ko naa sa bureau mais kii ban façon ni la mu c'est un expert en tout genre Serigne Mboup économiste là, juriste là, euh, menuisier là, mécanicien la tôlier la moom lépp lépp lépp alors que en réalité lim njàng sax mokkalu kon ay kàddu yu tukkee ci ki nga xam ne moom mooy secretaire général bu mairie bu Kaolack di Cheikh Sène Cheikh Seck ba tey rek ñu desandi ci mairie bu Kaolack ak agent yooyu nga xam ne ñoom naka la xam xamle rek mooy fas yéene wu ñu bàyyi benn yoon grève boobee nga xam ne ñu ngi koy amal ñu teew teewlu reportage bu asta ginnaaw sitting bi ñu doon amal ba noppi nag jébbal ab préavis de grève nga xamante ni rek moo di maire bopp mooy bu Kaolack ngir mu saafara seeni jafe-jafe ba noppi nag tox tax ca ne li ni mel bu ñu ci doxul dara daal ñoom ñooy dinañu bank seen yoxoo wala sax tey ñuy xam le nii dañu leen a aaye mairie bu Kaolack ne duñu fa liggéey mais sëriñ comme moom dafa miin nooteel parce que moom dafa jàpp na boo amee xaalis lu la neex def lu la neex wax ku la neex rey ku la neex dundal moom daf ko gëm fi mu jaar yëpp loolu la fa jaaree mu jàpp ne bu ñëwee ci maire bi loolu la fay def mu ne grève boobu du am grève boo xam ne yow juróom-benn téeméeri mairie yëpp ak benn ñu ngi koy def. ba tey ñu yëkkati ay kàddu nag teg ko ci derub sëriñ boobu bay xam la sax ni ñi fa jor ñi fa jot a jàll ñëpp ko nag moo fa gën a néew xam-xam ba tax na sax ñëpp ko gën. yow nga ne man kenn du ko duñ ko fi defee ku nekk boo amee lu naq sa kër gi nga dëkk sañ ko faa mas wane ñu toog fii ne li ñu naqadi dañ koy wane fii di ko métilu moom mu dem ci rajo yeeg télévision yi parce que moom opinion bi lay waxat moo tax nous aussi am nañu antenne pour wax opinion bi ñu déglu ñu déglu li xew ci mairie bi mais déglu gestion mairie bi également li ca xew pour nit ñi askan wi àtte ñu donc ci la waxee ci biir loolu daf ne kenn dugg ci mairie bi de l'instance suprême ci souveraineté bi nga am ñoom ñuy ñëw démb moom kenn côté la otom dugg ci biir maire bi oto ñi ci des ñëpp nekk ci biti mu fermé yëpp chaîne ay nervi jox leen ay fetal ay jaasi jox leen ay gourdin indi fi ay xaj mënte ay caméra de xool leen maire bi da koo dagg seng fu nekk mais xool ba tey syndicat du ñuy xam ne rek coow lu fa judd rek sëriñ moom moo ko jiitee ba tax na sax ci jamono ji jaral na leen lu nekk liñ wax oo ko ne ko daal dinaa sa bureau mais kii ban façon ni la te mooy ki gën a néew xam-xam ci maire yi fi jaaragu mooy ki ci gën a néew àlliwa mooy ki ci gën a ñàkk euh, expérience mais moom alala ba moo tax mu jàpp ne c'est un expert en tout genre Serigne Mboup économiste la juriste la euh, menuisier la mécanicien la tôlier la moom lépp lépp lépp alors qu'en réalité lim njàng sax mokkalu ko. ay jafe-jafe gane si mairie bu Kaolack tax na tey nag liggéeykat yi daal daal di yëngu-yëngal ne rek saafara la ñu bëgg ndax sonn nañu tàyyi nañu. ñu wutali commune bu Sibassor foofee nag mu mel ni ñàkkum kaaraange ga mu nga fay jaabaa jolle loolu nag tax ba ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca diwaanu Sibassor ci seen i kàddu ngir rek ñu jàppale leen ci mbir moomee naam sax su fekkenti ni municipalité bu Sibassor ñoom ñu ngi def seen kem tolluwaay kattan ngir rek ñàkkum kaaraange googee mun fa wàññeeku ñu teewlu ki nga xam ne moo àddu si seen kàddu ci Abdoulaye Mbodj waaw comme bu nga loolu moom dëgg la dañuy euh, dañ ciy ñaax bu baax a baax autorités yi parce que parce que insécurité euh, ñu ngi koy nemmeeku bu baax ci C'est ay nit ñoo xamante ne doo xam fu ñu jógee doo xam lan mooy seen intention ñu ngi agressé nit ñi loolu aussi je pense que ne mairie bi bàyyi na ci xel bu baax baax parce que liñ bëgg mooy euh, ñu fexe daal euh, teg fa brigade de gendarmerie boo xamante dina intervenir di def ay patrouille ci guddi gi pour mon barrer la route aux agresseurs je pense que ne liñ doon joytu aussi nga xamante ne da doon indi insécurité au niveau de la commune de Sibassor mooy l'éclairage c'est vrai que tout n'est pas rose parce que am na ay gox yoo xamante ne am na ay quartiers yoo xamante ne ba léegi mu ngi mi ngi ñuul mais moom def na ci lu am solo ba mu ñëwee parce que yokku na éclairage bi yokku na ko bu baax a baax li si des rek mooy am na programme boo xamante ne mu ngi koy déroulé mu ngi war a ñëw ñu tëddee ko programme yu euh, nay lampe solaire yoo xamante ne incha allah war nañ ñëw ñu am si part boo xamante ne si ba soo dina ci am part loolu aussi dina fexe ba xeex insécurité bi nga xamante ne moom moo am ci ci wàllu suñu dëkk muy suñu rubrique verte nag euh, nu ma leen ko junjee ci bopp xibaar yi dañuy dem euh, ca dëkk boobee ñuy duppee euh, Senghor Senghor nag nekk ci région bu Fatick commune bu Diouroup mu mel ni nag ci ab gàmm boo xam ne ñu ngi ko fa doon amal suñu ndaw yi demoon na ñëw foofee daal ci waxtaan rek ak ki nga xam ne moom mooy imam Alioune jon ñu teewlu leeral gi ak Alsane Gueye. Senghor di dëkk bu bokk ci région bu Fatick. commune bu boobu la dëkk nag lislaam dugg na fa ci lu yàggul lool waaye laata l'islam di fa dugg rek ab ceddoo gu mat sëkk moo fa nekkoon mu di dëkk boo xam ne dëkk cosaan la te ña fa dëkk di ay séeréer ku xam séeréer nag xam ko ci ceddoo li mel nag tax na ba mu jafe woon lool diiney lislaam daal di fa dugg foofu sax waxtaanee fa diiney lislaam doonoon na lu risqué lool li mel ba taxoon na ñu bëri ñemewuñ woon dugg ci diiney lislaam ginnaaw loolu ay at ci kanam ab ab ndaw bu jógee ko foofee ca Siin daal ñëw fii ci Saloum bi mu fi ñëwee nag daal di gisee Maulana Cheikh Ibrahim Niass ci noonee lañ ko daal di tàggat daal ko dugal ci diinay lislaam jàngal ko arxuraan ba arxuraan daal di tàbbi ci dënnam fees ci lool sax moom mu ngi wuyoo ci turu imam Aliou Dione gannaaw loolu nak mu ne dafay dellu ca dëkk ba mu di Senghor ngir rek gëna yaatal dinay l'islam waaye yaatal bi le tool ci diwanu Senghor dina don lu metti lool ci mom waye ci vision am bu rëy ak li nga xamantene ni mom moy leadership bu mu andal loolu dina mëna nek te te ben mu daldi and ak ñett nit rek ci dekk ba ñu nek di dundal diiney l'islam ay at ci kanam ñett ñoñu daldi ko fa bayyi génn àdduna mu dem sax moom ba bëgg a xàddi ngir rekk gis na ne ñam ca daan àndal ñoom daal di nañu gaañu waaye ne gëm-gëm ak pas-pas ak wóolu yàlla tax na mu daal di wéyal yoon bi ci atum 2020 yàlla boole ko ak nitu yàlla bu màgg di wuyoo ci turu Cheikh Hamda Labib Diop kooku nag daal di ñëw jàppale imaam Alioune Diop eh, ci dëkk bii di Senghor ngir rekk ñu mën a yaatal diiney lislaam mu metti woon lool waaye tey la ëpp ci dëkk ba daldi nañu doon ay jullit te képp ku di xale ci dëkk ba rek yaa ngi sàbbal ilaha illallah Imam Alioune Dione daal di fa samp daara waaye ki nga xamante ne nii mooy cheikh Hamdal Habib bam ñëwee moom tamit daal di wasaare diinay lislaam ci dëkk ba daal di tarbiya xale yi ci yoonu tijanisme gannaaw rek ba mu jàngee fii ci diwaanu Saloum loolu moo di histoire bu sengor nekk dëkk bokk ci région bu fatik commune bu Diouroup Yeah. alsan geyi di koy jaajëfal euh, bu baax a baax ñooro lañu wutal yi ak ndaw ñi du pee seeni bopp jeunesse mag yi 2024 ap slogan nak la ñu daal di yëkkati daal di xam le ne second quinquennat ñoo ko res mu mel ni ñoom nag di nañ noppi ngir rek jàppale ki nga xam ne moom mooy rew réew mi Macky Sall ci élection palum njiitum réew yi ñu deggmal ci atum 2024 ngir rek mu amaat li nga xamante ne moy mooy ñaareelu ñu tewlu seen i Nous sommes woon commune pour investir le président Macky euh, Sall en 2024 Nous, japonais, Maki Macky Sall c'est l'homme qu'il nous faut pour la continuité de l'émergence euh, de notre cher pays Nous ñun ñi nga que nous sommes l'avenir de demain nous sommes les futurs dirigeants du pays kenn waru ñu lo, kenn waru ñu toj parce que nous ñuy toj nous ko ce sont les biens communs ko

dirigeants du, du pays donc on doit conserver les biens communs citoyenneté boobu dafa war a nekk ci ñun civisme boobu dafa war a nekk ci ñun képp ko xamanteni ni fekk la waxuma na fekk sax may dama wax ne euh, samba boy la dañuy wo ci lool, neen wax ne intérêt crypto personnel rek la di wone rek ne wa joju nga xam ne fay wax ne dafa bëgg réew mi te yàq ak i toj lay woté. Mom du mom ak président Macky Sall dañ ko don wan sax ne du mom ak suñ leader yi du moom ak DG IPRES du moom ak DG APROSI du moom ak honorable Abdou Ndiaye moom ñun la la jeunesse. mu ngoog mu mel ni yegsi nañ ci ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy doxee ak ponk bu njëkk di xibaaru bi ci xew yi Ibrahima Diop lañ ci àndal. xibaaru biti réew yi dañu koy door rek réewu Mali takk der ya féete ca bët gànnaaru réew ma ñu signé woon ab accord de paix ca atum 2015 tey jii ca altine ji ñu nga ca Alger ak Amassine ca Alger amal nañ fa ab waxtaan ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu médiation internationale jëm ci accord de bi nga xamante ne ay jafe-jafe yu tar lay dund jamono ji ca Amassine ca dëkk bi ñuy woowee ki daal takk der yi ñu nga fa ginnaaw opération bu am solo bi ñu fay amal ngir kaaraange askan wi ñu jubali ci réewum Cameroun foofee ca Cameroun layookat ya féete ca partie ba lañuy tuumaal ci génn àdduna suñu naataango taskatu xibaar bi di Martinez Sogo ginnaaw bi ñu ko fekkee mu génn àdduna ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu weesu li nu mel nag dara waralu ko lu dul xeex yi ñu nemmeeku ci taskatu xibaar yi xibaaru biti réew yi dañu koy jeexaleek réew Maroc kuréel gi ëmb liggéeykat yi ñoo doon amal ab doxu ñaxtu ci dibeer gi yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février doxu ñaxtu boobee dara waralu ko lu dul crise sociale ba fa am ak dund gu seer gi ñu fa nemmeeku ci weer yu ñu weesu ca Rabat doxu ñaxtu ba dañu ko gàntal ginnaaw bi ñu fa inde ay takk der yu bëree bëri ngir ñu aaye li nu mel mu bokk na ci li gën a fës ci xibaaru biti réew yi Ibrahima Diop di koy jaajëfal bu baax a baax kon ñu jàll ci xibaaru tàggat yaram yi Assane Thiam moo ñu koy nafaral. mbégte ak contentement lay doon jëmale ko ci ñi nga xam ni bëgg nañ kii di Sadio Mané loolee sax mooy dellu si bi nga xam ni Sadio Mané amal na ko ni ki démb ci entraînement yi nga xam ni entraînement collectif la foofee ca Bayern Munich sax la amal ni ki démb ab entraînement am loole nekk mbégte ba tey ci ñi nga xam ne ñooy supporter équipe bu Bayern Munich ndaxte ñaareelu defetam jël na ko ci championnat samedi bi lay weesu ca bu Borussia Coupe d'Afrique ci ndaw yi nga xam ne seen i at matagul la ñaar fukki at équipe bu Sénégal ni ki démb daal di dóore équipe bu Nigéria gone ya Malick Daf yooye sax daal di def tàmbali gu am solo ci bile compétition lu ni mel sax fay Faye moo dugal bii bi nga xam ni benn cundum la ci bile match benn bal ci dara la ñu dóor équipe bi di équipe bu Nigéria bii bi mu ngi dugg ci ñeent fukkeelu minute bi loole sax moo waral ñoom jamono ji ñu toll ñu nekk premier ci groupe A bi xam ne ci lañ nekk match yi di ñëw ñu ci jàkkaarloo ak équipe bu Égypte naka noonu ne it après équipe bu Mozambique la ñuy daal di amalom di match bi ci bile weesu Samba Diallo la moom moomee sax mooy capitaine bu équipe nationale. tëj xibaaru tàggat yaram yi ak joor bi di Karim Benzema daal dina disponible ci match bi nu war a amal ak lii di Liverpool lu ni mel sax war a am ni ki suba ci ngoon Real Madrid war a jàkkaarloo équipe bu Liverpool loolee sax di dugg ci huitième de finale bu Ligue des champion waaye ñu fàttali ni joor bi di Aurélien ak Toni Kroos du nu bokk ci bile match lii di fës ci xibaaru tàggat yaram. Assane Diam ah, cant ak ngërëm ah, ñeel na ko kon mbokki mi mel ni yegsi nañ ci suñu ponk gu mujj di li ëtt yëglekaay yi xëyee tey dañ ci ànd ak Penda Diallo dal leen ak jàmm enquête li mu xëy fësal bokk na ci woote ngir waxtaan sax sax ñu daal di xëy fësal nag nataalu ko Xalifa Sall ndax jafe-jafe jëm ca boobu la jamono nag sëriñ jël ay dëgg nag jagleel ko Macky Sall solo xëy fësal ba tey mandat bi nga xamante ni président doon ko amal ci Union africaine mu di ab mission boo xamante ni rek mën nañu ne def la ci li ko war moo tax na sax sëñ Bass Abdou Khadir moom itam taxaw daal di ñaawlu ba àqu ak yelleefu bërëb bu sell bi di Touba la turbine xëy fësal nag ñi nga xamante nii rek jàppoon nañu rek dañoo amul njuuj njaaj ci xaalis bi nga xamante nii nag mbas bi dugaloon na ko fi Pierre Sané tamit nekkoon secrétaire général bu Amnesty International daal xam ne rek moo di constitution bi loolee sax nekk ay baat yoo xamante yëkkati na ko ci kanamu Bougane Gueye moom Serigne Habib Sy ne rek nañu woo ñi nga xamante ni ñoo ëmb wala wala sax nga woné lo waxé wala dinañu la daan ba tey fa mu taxawoon rek ak Walfu dapp ci nañ kenen ci Pastef ndax loolu du jur ciow mu di charger communication bu Pastef bu kafri le regard xey poster ba tey mu rek ki nga xamanteni modi moo di Yérim bu mu addo jëm ci dossier mambay Mbaye ak nga xamanteni ni moom Sonko mambay Mbaye nak ci jamono ji yëpp ba tey ki nga xamanteni rek modi ibrahim Birahim mi ngi koy dal mom ibrahim Seck nak di xaar à rek mambay Mbaye dal di bind plainte dal di ko koy tek ndax li nga xamanteni mu ngi koy genn ci dossier product bi suus xey fësal li nga xamanteni ni Sonko mu ngi koy def ba tey ñuy xamle ni ab meeting booroon na am foofee ca Mbàkke ñaar fan ak ñeent ci weeru février Sonko daal na koy dakkal direct news xëy fësal rek ne pourquoi ce mutisme de la société civile et des politiques mu di ab laaj boo xamante ni laaj bu euh, samp la ajaratu Penda Diallo daal dinañ ko jaajëfal bu baax a baax boobu léeg-léeg mag sax moo yëkkati suñu jotaayu xibaar kon mbokk yi lu nuyoo tàggoo lu jiwoo joxul jot na tàggatoo nag jot ci xibaar di jaajëfal bu baax a baax doyen Wade ak Assane ñoom ñi jàppoon ci wàllu réalisation xibaar yi di jaajëfal itam Baye Mor Thiam moom mi jàppoon ci wàllu régie bi ba dégg-déggin ba gis-gis gi mën a leer moom ak équipe am mbokk yi ñaanal leen jàmm te di ko sàkku si yéen yàlla bur bi moom jàmm te ku mu jàmm man nga am jàmm yal na ko wasaare ci war wërngal këpp jërë ngen jëf